di leen xamal ñun mbëri ñu fi ne comme ni ko Baye Sam waxee sànq quoi ñun ay noobu lañ kon bu ñëwee si bis jàmm dañ koy xam nga dañ ko war a mën a respecté violence barke rasulaay war ji xam nga est-ce dafa métti te Baye wax dëgg fa yàlla dama koy ñaanaat suñu borom muy dem bay tëgg ay combat yi mag a mag mag mag arène nationale waaw di sant sama gars yi ma àndal ñëpp équipe Dar Salaam di leen sant bu baax a baax a baax a baax di sant sama ménagère Ibrahim di sant Pape Mbengue di sant xam nga sama moniteur Ali Gueye di sant équipe parcelle waaw di sant Boubou Fit xam nga Djibir Mbaye maa ngi koy sant baax di sant xam nga ay ñoom kot xam nga di sant général xam nga di sant gars yi fi teew yëpp waaw wuy sa adversaire li wax dégg nga ko waaw dégg naa ko façon mbir mu ne bëri ak moom kii moo gën a tuut suñu mbéy bëreel maam sa numéro 2 waaw déggoo lu ma la wax ba arbitre sifflé dina xam ne li bëgg la mam sa neena ñi mi muy bëre ñëpp yaa ci tuti a sa la Sala de xex la bis bi yàggatul la duur la soreetul. da nga da daa de xex waaw non la demee nak da comprendre quoi waaw wax ji jëratul muy bëri dañuy wo ñuy jàppale rek. di ci jiiral Birame Souleye maire actuel bu zone nord ñu ngi koy woo mu ñëw japp ci combat ak docteur ndjay ak Lamine wad mi nga xamni suñu grand la ñu bok koñ. waaw mu japp ci Abdou Mbuya mu ñëw japp ci bis bi waaw di ñu wax sama koñ wa Kër di wax ñu jappalé mo bu baax ndax man ay talibé ñoo supporter té dañuy yalwaan di jël ma seetaan dama bëgg ñu may ma ay bee ñëw jàppale ma may ma ay bee ma may leen ko ñu ñëw seetaan ma jàpp jungeel misaan mi duuru fay mi jàpp ko daan ko jël bu rëy. daa mel ne danaa xam ne. waaw déggoo la wax bu ko neexasee mu ñëw mu ñëw gaale jour laa mujjee mu ñëw mën na ñëw gaale fanaan seen kër affaire de musique lay wax. kii mën maa tey si musique ki nga xamante ne mooy Samba Faye di ki nga xamante ne mooy mooy mooy di wooyee xam nga ci moom mooy mooy mooy mooy mooy ngaan ngaan ngaan fay maa ngi koy woo si combat bu baax a baax a baax di woo ki nga xam te ne mooy Modou Naar maa ngi koy woo si combat bi di sant association bëgg sa yaay di sant association bëgg chinois wii noo maa nga woo association yëpp bopp beeg ba si kaw xam nga ziar ñaar ñëpp di woo si combat bi di woo ñi nga xamante ne moom mooy waa équipe d'ensemble bu baax a baax a di woo ñi nga xamante ne ñoo jàpp si làmb ji ñu ñoo jàpp si combat baax di sant sama ñuy jaay Ousmane Faye maa ngi koy waaj ñaanal mu ñaanal mu baax a baax a baax ma jàpp maam Sall ñi jàpp ko daan ko jël bu rëy di woo di woo bu ma fit di woo laay Dakar ji su ma limee damay jum ñu bàyyi ngeen joxante loxo rek di ñaanal kii mooy Djibi Mbaye yàlla ko dem di ñaanal nay leer incha allah yàlla may ko dem le 29 ñu bàyyi ngeen joxante loxo

waaw ginnaaw gu ma sant yàlla julli si yonent bi di sant sama ñaar waajur di leen xamoon ñun mbëri ñu fi ne comme ni ko Baye Sam waxee sànq ko ñun ay noble lañ kon bu ñëwee si bis jàmbur dañ koy xam nga dañ ko war a mën a am si làmb ji xam nga est que tëgg làmb dafa métti te Baye Sam wax dëgg fa yàlla dama koy ñaanaat suñu borom muy dem bay tëgg ay combat yi mag a mag mag mag arène nationale waaw di sant sama gars yi ma àndal ñëpp équipe Dar Salaam di leen sant bu baax a baax a baax a baax di sant sama ménagère di sant Pape Mbengue sant xam nga sama moniteur à liggéey di sant équipe parcelle waaw di sant Boubou Fit xam nga Djibir Mbaye maa ngi koy sant bu baax di sant xam nga ay ñoom kot xam nga di sant général xam nga di sant gars yi fi teew yëpp waaw parce que wuy sa adversaire li wax dégg nga ko waa dégg naa ko façon mbir mu ne naa ak moom kii moo gën a tuut suñu mbay bëreel maam sa numéro 2 bi waaw déggoo lu ma la wax ba arbitre sifflé dina xam ne lépp la maam sa nee na ñii muy bëreel ñëpp yaa ci gën a tuuti. Kara Saalum yàkkamtee xeex la bis bi yàggatul la duul la soreetul. da nga yaakaar daa yàkkamtee xeex. waaw noonu la demee nag daa comprendreul quoi. waaw wax ji jëratul muy bëri dañuy woo ñuy jàppale rek. di ci jiiral Biram Sulay maire actuel bu zone ñu ngi koy woo mu ñëw jàpp si combat bi ak docteur Ndiaye ak Lamine Wade mi nga xam ne suñu grand la ñu bokk koñ waaw mu jàpp ci dumb yaa mu ñëw jàpp ci bis bi waaw di ñu wax sama waa koñ waa di wax ñu jàppale ma bu baax ndax man ay taalibe ñoo may supporté te dañuy yowaan di jël seen xaalis di dagg ticket di ñëw di ma seetaan dama bëgg ñu may ma ay bee ñëw jàppale ma may ma ay ma may leen ko ñu ñëw seetaan ma jàpp jungeel mi saan ñi duuru fay mi jàpp ko daan ko jël bu rëy daa mel ne da danaa xam de. waaw déggoo la la bu ko neexee mu ñëw mu ñëw gaale jour lamb jë mu ñëw mën na ñëw gaale fanaan seen kër affaire de musique lay wax kii mënu maa téye si musique. waaw di woo di ki nga xamante ne moom mooy Samba fay di ki nga xamante ne mooy mooy mooy Sarel Mangane di wooye xam nga ci moom mooy mooy mooy mooy mooy ngaan ngaan ngaan fay maa ngi koy woo si combat bu baax a baax a baax di woo ki nga xam te ne mooy Modou Naar maa ngi koy woo si combat bi di sant association bëgg sa yaay di sant association bu chinois wii noo maa nga woo association yëpp bopp beeg ba si kaw xam nga ziar naa ñëpp di woo si combat bi di woo ñi nga xamante ne moom mooy waa écurie Daaru baax a baax a di woo ñi ne jàpp si laama ji ñu ñoo jàpp si combat bu baax di sant sama ñuy jaay Ousmane Faye maa ngi koy ñëwaat ñaanal mu ñaanal mu baax a baax a baax ma jàpp maam Sall ñi jàpp ko daan ko jël bu rëy di woo di woo bu fit di woo laay daxaar ji su ma limee damay jum ñu bàyyi ngeen joxante loxo rek waaw di ñaanal kii nga xamante ne mooy Jifir Mbaye yàlla may ko dem di ñaanal nay leer incha allah yàlla may ko dem le 29 ñu bàyyi ngeen joxante loxo Baik kita, dan saya Sama मुझे कंटे आसान कहने अक्के एसपी nee la Assane bukki euh, timis na heure boo ko dàqee mu ñëwaat sa gétt combat bu mujj doomu ndeyam la bëree loon tey mu ñëwaat jëlaat ko damay bàyyi kees fële rek mu nuyoo moom itam di ndaanaan ñu gis ko Morala mu bëri fa ak Papa Ndiaye am ko combat yi doy waar metti lool kees fële maa ngi lay nuyu. waaw alhamdulilah ginnaaw ma sant yàlla julli si yonent bi di sant sama ñaari waajur du nuyu gars yi toog ci saal bi yëpp di ñaanal Baye Samba mu dem xam nga di nuyu sama gaa yi ma àndal ku ci mel ne Bamba xam nga son xam nga di nuyu petit allemand ñoom kaaw xam nga ñoom caat di bëggee sama gars yëpp dañoo bàyyi lépp mooy loolu waaw di nuyu sama adversaire Assane waaw damay nuyu ñu ma àndal ñëpp xam nga di nuyu ñu ma bàyyi kër ga di nuyu ñu ma fekk tamit di jaajëfal booy ma àndal xam nga di sant sama moniteur bu baax di sant booy ma àndal yëpp daal waaw nga jël kees bi sa diggante ak moom. waaw kii man ak moom du combat man ménagère laa war a bëreel quoi parce que moom xaw ma lu mu gis si man mais nee naa ko ku mënul ci man pàkk laan ak màkk laan mënul ci ñun dërëm waaw. Quinze Pele dégg nga li mu wax. waaw dégg naa li mu wax mais kii dafa baax rek kii làmb ji moom li muy def nii la ci am suñ jëflantee ba pare moom après su ma rombaatee kàppoo la may wooyee. lu waral loolu. non kii dama ko man foog gis nga kii nii kii day xànju nii kii du dërëm buñ affronté ba bàyyante lay xam ne du dërëm. Assane mi Assane mi du gërëm gisee kii nii kii day xànj du dara. yow daa mel ni dafa mel ni da ngeen a ñemantewut. kii lu may ragal si moom góor du ragal góor. jàkkaarloo caméra góor du ragal kii lu may ragal si moom kii bu ma demee bay ragal ci moom ci làmb ma jël ngemb la tekki ko saa. non yéen ñaar laax dama ne daa mel ni da ngeen a ñemantewut. non man ragaluma ko est du moom moo ma ragal moom ñemewu ma. xaaral ma laaj ko ko. gaynde la ñu wax. gaynde xanaa du ragal benn mala ci àll bi lu mu gis da koy fat billaay wallaay yow kees fële mi loo ko yabe kii man ak moom làmb la rek xam nga nee na du ma mbër yooyu noonu moom mbër la man mbër laa mais nañ bëre ñu xool ki mën dina daan bu baax soobee yàlla. li nga daaloon ndongoloo moo tax lu rëy laa ko doon dama ko duma ba muy bëgg a dee daan ko. est-ce que xam nga ni ndongolo ndongolo du kees fële mi du ndongolo. ku dul moom sax daan naa ko billaay wallaay. kii bu ñemee ñu taxaw ñu xeex cinq minutes. teg reliquat am njaay joxal jóob ba kenn tëdd. yow ak Assane Gueye bu ko neexee am njaay joxal jóob ba kenn tëdd wallaahi kii bàyyiwuma ko sax xel kii tapet la kii xam nga su ma demee ba bëri moom ay cinquième combat xam nga ne du moom loolu pour man la barke maam Sera Fall dama koy may bës nii rek billaay wallaay lam moo ñu boole nag dinañ bëri ba naaw billaay wallaay ñu bàyyi nga woo ñu lay jàppale ci bis bi waa damay woo ko mel ni Fallou jaay ko tu soble la xam nga di woo boo yemee àndal bu baax di woo ay Baye Daawur di ak ki nga xam ni. waaw waaw. ki mooy yaakaar naa booy gën dar numéro 2 gis ngeen ko surna Baye Samba Bala Diallo moo bëree spécial bi moom ak booy taset mu ñëw waroon a bëreeg suñ toon mais gis nañ suñ toon ñëwul parce que dafa am empêchement booy gën dar maa lay nuyu. waaw ñu ngi lay fay avant tout dañuy yàlla di julli si yante bi di sant suñu ñaari waajur yaakaar la ko di ñaan yàlla def si Sénégal jàmm di nuyu ñi ñu fekk suñu patron yi ñu fekk fii dem grand Ibrahima Gueye Pape Dieye di seen Sidaat Cheikh Saad Baye Dieye di nuyu nag sa adversaire ñëwul la lan nga koy yóbbante yaa na fekk jàmm la rek yaa na fekk jàmm la rek ñu teew si biir xam nga ñu bëri lu neex ama samay combat naqadiwul waa seetaan ngeen samay combat lu benn combat la am nag bëri naa lu neex macha allah te itam gis ma mobilisé mooy grand combat yi grand combat yi ëpp nu ma mbooloo ma mobilisation bi nga indi woon sa premier combat fii est-ce que mën nañ koo xaaraat maa leen xaar maa leen xaar mboor ñëw leen mboor maa ngi leen xaar booy ñëwee da nga xam ne ni pare di sant nag sama pap ak sama yaay baax maa leen di gërëm son nañ si man trop di gërëm nag waa kër Cheikh na Cheikh Sadou yëpp waa kër Cheikh na Cheikh Sadou maa leen di gërëm di si jiital sama wasi la Cheikh Sirif Daay dara doomu Cheikh Sirif Beye Farfara doomu yaay la la maa ngi koy gërëm di ko sant bu baax macha allah bis bi nag mi ngi si taxaw bu baax a baax a ci si woo waa kër Sele mi ngi woo waa kër Adumaari Gol Gaynde boo leen waa Ndar di si nag invité nag suñu a Tapha Tapha Tine waa Réfane yëpp ñu ngi leen di sant wax dëgg ne ay borom baax na nit ñu baax nañu barke am amuñu benn problème dafa nag grand bu am jàmm la macha allah mi ngi koy woo si bis bi nag mu teew bis bi incha allah bis bi gën a neex di sant nag sama gars yi maa ngi sant ñëpp jërëjëf xam nga sama adversaire ñëwoon moom yaa na fekk jàmm la rek mais jour ba lay dàq incha allah. jërëjëf ayoo ñu dugal mbay papa ji mu présenté combat social bi dox ci diggante Lac Rose bu 50 ak Modou Anta numéro 2 grand combat bi Siré Dia numéro 2 ak Volcan dugalal ñu mbay papa ji. বাইরে